jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi Baye Cheikh mooy nuyoo tey ziar mbokk lu xew. wala boog mbokk yi lu xewoon boo boolee quartier yi ñooy doon village bi nga boolee village yi ñu doon commune bi te commune bi ay jafe-jafe kese la mbokk yi waaw nan lañ mën a waxee ne responsabilité dëkk bi ci loxoy commune bi la nekk te yiliful kenn mbokk yi dañ laa dékkub dëkk te suuf si amoo ci benn responsabilité kuy tabax doo yëg kuy luwe doo yëg kuy jaay doo yëg jaay kër mu jar 300 millions yoonu commune nekku ci benn dërëm du fa jaar mbokk yi kon yow koo yilif mbokk yi weñ gaa nga bañee ca mbokk yi ndax jekk na ndax na mbokk yi ndax kal mën naa nangu ku neex fu la neex jënd fa kër te amul benn condition bu ñu lay tegal mbokk yi donte kër gi day jar 300 millions wala 500 millions ñi ñu wax ne ñoom lañ denk dëkk bi seen yoon nekku ci yëguñu tiinuñu amuñu ci benn sañ-sañ mbokk yi waaw nan ngay yilifee ab dëkk boo xam ne kuy tabax sa yoon newu ci kuy luwe sa yoon newu ci kuy jaay sa yoon newu ci benn mètre suuf yoroo ko yow lempo sax mënoo koo fayu ndax nit a ngi dëkk ci quartier di fay lempo ci beneen village ndax sëriñam a dëkk nit ngi nekk chef de village te dëkkul ca quartier ca dëkkul ca quartier ba mbokk yi yow ana loo yilif mbokk yi lu xew ku xam wax ma ñu seetaat dëkk bi na nañu seetaat nosin wi yoral say koppar fu la neex mën nga faa jënd kër te Serigne Saliou woon na banque yi bu ñu nangu ñu nekk ci biir corniche bi te ku am kër ci booru jumaa ji lu ñu la ci fay jaru ko waaye léegi mbokk yi koppar tax na ku yor kër gu placé boroom alal ñëw jënd ko te xamuñu ku mu doon xamuñu lu mu koy doyee mbokk yi ndax jaadu na ana ñu war a taxaw dëkk bi waaw sëriñ bi nee na damay bañ la daloon Palestine dal leen mbokk yi yore yi ñëw gérer seen alal jënd la fa nekk yépp ci suuf mbokk yi ba tey ñu xëy génne leen weeru koor wi yépp ci ay bombardement ci la ñu wooree ci la ñu waree mbokk yi nañu taxaw ci dëkk bi te nos ko waaye bu fekkee ne kenn ku ci nekk sa njëriñal bopp rek la ñor ak lu ñëw nga jàpp ne ci yow la gën a jekk te doo seet ne ay doomi aadama ñoo fi nekk te yittewoo lépp mbokk yi te nañu moytu nit ñi di jóg di defal seen bopp wala di fajal seen bopp doo daan yaa ngi nii de ñaata at waa dëkk baa ngi jàmbat ay doo ci barab yoo xam ne waxtu ngi am accident ay nit di fa faatu yoonu kenn newu ci boo jógee kër Serigne Moussa Ka jëm paaleen ñaata yoon la ñu fa laaj ay doodaan ba tey kenn defu ko ndaam gi ñaata accident ñoo fi am ba bërki démb am na gone gu dal ci mbàkke Touba daanaka yàllaa ko suturaal waaye tànk ba yàqu na mbagg ma yàqu na mbokk yi oh, lu tax lu tax mënuñu leen indil doodaan yi nga xam ne ni ay at ñu ngi koy laaj paaleen ay nit ñu bari di fa faatu kenn lijjantiwu ko diggante juuti ndaam bi ak station Shell bi bés bu set accident am fa nit loru fa defal seen bopp doodaan mbokk yi moo ne yóbbu nañ doodaan yi foo xam ne yittewoowuñ ko ku mun te defoo nag lu yàq yoo waaye it ku mënul te bawoo jàngatu Baye altine bu jot ci UCAB FM ci UCAB